salaamaaleykum gars yi nuyu wat na la si ku nek turam ak santam di wax ni kep ko xamne abonné ko ci page bi du la ñaan lu du nga ya, abonné activer ko si notification yi comme nu koy ñëpp di defee sama tey wi la won tay dañoo ñëpp indi leen deux coupons ci benn vidéo benn bi nak score exact la mais laata loolu loo bëgg xew xamne bëgg nga di jëm si wàllu pitax puissant da ngay woot ci numéro bi ñu ko ci ñekk ak teranga yu neex ta yomb ah ñu door affaire bi ak ah match Sénégal bi di ñëw di score exact bi ñu def 2-0 pour Sénégal manam Sénégal dina gagner 2-0 ah. voilà score exact bi lolu la Sénégal dina gagner 2-0 voilà mo ngi no ci kaw waaw Sénégal 2 voilà ñu jógee foofu noonu dem jël beneen code bi gaaw bala muy li xam nga vidéo bi am na ñoo xam ne vidéo bu gudd bi arrange wu leen parce que seen connexion mooy loolu voilà ñu sóoraale si ñoon léegi nag beneen a score beneen bi du score exact ay match la si match yi suba si match mooy Sénégal dina gagné avec deux bi et non non du gagné avec Sénégal dina dugal deux mais laata loolu loolu lépp jëru ko ne ñu jëlee code bi directement ah voilà duñ jëlee code bi directement boo lu nekk ci loolu amul risque amul dara voilà fiable la te assuré voilà fiable la te assuré luy jàpp nag ah yàllaa ko xam mun na ma leen assuré na day jàpp carrément mais am naa si yaakaar voilà sama gars code baa ngi noonu ñu dem jëli code bi te loolu ñu ngi leen di sama gars yi si pass parce que pass bi fan yi voilà abonné yi des na mais ñu ngi leen di sama gars xam naa ne mën ko à te vidéo tey bi la woon bu dee kontaan nga abonné like